Bienvenue sur Salam Vision. baax a baax a baax a di julli ci Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy sangi-sang yi di ashraful xalq di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu defal ñu ñu sopp soppeem boobu bëgg soppeem boobu di Seydina Muhammad ndax yàlla wax na ci alquran ni ti bi yonent yonent bi yonent bi yàlla waxloo ko ci alquran mu ne qul in kuntum tuhibbuna allah mu ne su ngeen bëggee yàlla bëgg leen kon fatta bi om ni topp la ma man su ko defee yuxbibkumullahu yàlla bëgg leen wa yaxfir lakum yàlla jéggal leen seeni bàkkaar kon fa tabarakallahu di julli ci moom di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala dolli suñu cofeel ci moom di ziyaara di ñaanal suñu suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tijani yal na yàlla dolli ko yërmande ak leer di ñaan yàlla rek borom subhaanahu wa taala buur bi ñuy jëmale fa moom yàlla nekk bu mu suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick di nuyu di ziyaara Serigne Babacar Sy Mansour ataalallahu amruhu wa ayyadahu nasara yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla wattu ko gis nañ taxawaayam ci àdduna bi gis nañ taxawaayam ci réew mi gis nañ taxawaayam ci diine ji waaye gis nañ taxawaayam ci tarixa bi yàlla yàlla sàmm ko yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla wattu ko yal na yàlla gën koo sàmm bàyyi ko njabootam bàyyi ko fi ba ci kanam kanam bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziara sëriñ muntaxa mbàkke atala umruhu wa ayadahu nasara di ko ñaan yàlla moom it yal na yàlla dooli dëgëral ko yal na yàlla dooli sàmm ko yal na yàlla dooli wattu ko noonu la ñuy nuyee sëriñ Baay Bekkaay Bekkaay Kunta di xalifa général nekk sa nekk sa Njaasaan di ko ñaanal moom it yal na yàlla taxawu ko noonu la ñuy nuyoo xalifa xalifa Medina Baye noonu la ñuy nuyoo xalifa Léona Niassène waaye dañ ko tabaarakallaahu noonu la ñuy nuyoo xalifa Limaamu Laay noonu tamit la ñuy nuyoo fa tabaarakallaahu xalifa Ceneba ak mboolem xalifa yi ci kaw suuf yëpp ñoo ngi leen di nuyu di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla yàlla doole dëgërale yéen yàlla doole di sargal nag di ñaanal ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñooy ànd sàmm jikko yi wa tabarakallahu wa tabarakallahu di leen ñaanal ñu gën ci ràññeeku rek ku ci mel ni Makhtar Sarr wa tabarakallahu ku ci mel ni Dàmbooj wax dëgg yàlla maa ngi koy wax sànq sama benn waay maa ngi naan ko man daam yenn saay sax dama koy xaw a mere waaye yenn saay dama dama koy bëgg waaw yenn saay ni muy génnee yenn saay ni muy kee gaay dama koy xaw a mere yenn saay mais su ma ko meree rek yenn saa yi dama koy dama koy nangul waaw dama koy nangul ndax dama gis ni muy ni muy défendre bokk ci ànd sàmm jikko yi danga xam ne kii fa tabaarakallaahu yàlla yàlla doo doole dëgëral ko yéen yaa ngi koy wànkee waxtaan rek sànq sama benn waaye bañ taxawee maa ngi naan ko man daal daam dàmboo daal neex na ma lool daan naa ko di ko di ko xaw a mere nag waaye dama seetlu lu jëm ci wàllu diine jëm ci wàllu góor jigéen ñi ni mu ciy taxawee jikko yi pour jikko dellu si wax dëgg yàlla neex na ma lool lool lool di ko ñaana rek ak mboolem ñu muy àndal yal yàlla gën a dëgëral leen yal yàlla gën a sàmm leen yàlla gën a wattu leen ñu mel ni ñoom rek la réew mi soxla fii nii ndax jikko yi commencé naa tumuraanke te bu jikko yi tumuraankee rek fa tabarakallahu du baax kon nag àdduna bi yëpp war nañu taxaw Sénégal yëpp war nañ taxaw ginnaaw bi xalifa yi génnee joxe seeni kàddu signé kon fa tabarakallahu képp kuy jullit di woote baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulaay fu la ànd sàmm ci kuy woo foofu da foo fa war a fekk te gëm naa ne duñu woo nit ñi jëmale fenn fenn fu bon mais dañ leen di woo jëmale leen ci li yàlla gërëm ndax fu Serigne Babacar Sy Mansour dugal loxoom Serigne Mountakha dugal fa loxoom Khalifa Baye dugal fa loxoom Khalifa Lone Niassène dugal fa loxoom Khalifa Thiénaba dugal fa loxoom Daaka dugal fa loxoom waa waa waa waa kër euh, Madani Tall dugal fa seen loxo te ñooñu fa tabarakallaahu représenté wu fi ngeen ku doon borom subhanahu wa kon ànd sàmm jikko yi bu ñu ànd ak Matar Sarr ak ñu mel ni ñoom di sàmm ci yi di xeex li nga xam ne fa tabaarakallaahu baaxul ci réew mi day tumuraanke réew mi kon ñu def lu rek ñaanal leen yàlla yenn yàlla doon di dëgëral leen yenn yàlla doon di dellu sàmm leen bu mel ni fa tabaarakallaahu la ñuy wax naan ne euh, nit nag foo nekk am na ñu baax am na nañu bon boo xoolee ñu ñun Cheikh Yérim Seck dafa am ñoo xam sax waratuñu wax sax ñu leen di déglu mais télé yi ñoom ñoo amatul programme xamuñ ñu ñu war a woo ñu ñu warta woo waaw boo xoolee ku ci mel ni Cheikh Yérim def nañ ko fi intellectuel daf ko ci naan dafa mel ni mais am ñoo xam ne jarul waratuñ sax wax waaw ndax sénégalais yi rek ñooy ñooy gaaw a fàtte waaw koo xam ne barki moo njaay am na loolu lay waxal fii tey yaa ngi fii suba yaa ngi fee boo génnee wax lii boo génnee waxaat la kooku waruñu la sax invité di la déglu ñenn ñi sax waruñu sax di la tontu di la may di la may bës ak di la may wax di yokk sa wax nit ñi di xam loo wax waaw économie am na lu ko jiitu maa min daabatin fil ardi illa ala llahi risqa wërsëg ci loxo yàlla nekk te xanaa ñun demuñu étudiant sax te demuñu université du ñu ay étudiant mais toog nañ ay étudiant ñu xamal ñu kat ni kat li économie Sénégal di defal waa France France defal ko waa Sénégal waaw luy luy jigéen fii ci Afrique di ko di ko jox Europe Europe jox ko waa waa waa waa waa waa Afrique kon bu ñu wax économie bu ñu wotee loi bi day wàññi économie Sénégal yaakaar na loolu waxul la économie boo xam ne fii ngay dee bàyyi ko fi ndax wërsëg loxo borom subhaanahu wa taala la nekk yàlla moo joxe wërsëg bu ñu amoon ay dirigeants yu baax am ay diri ñun lu ñu lu mooy ay dirigeants yu baax mais ñàkku ñu benn économie fii am nañ gaz am pétrole am nañ suuf am nañ dox am nañ dex ah am nañ géej kon ñun lan lañ yàlla deseel loolu ay dirigeants yu normal bu ñu amoon ay dirigeants yu normal rek léegi réew mi normal kon dootuñu wéeru ci benn réew ba bu ñu wootee lii day manqué si ñun wala bu ñu defee lii day yokk si ñun kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp xoolaat suñuy dirigeants suñuy dirigeants xoolaat seen bopp xam ni fa tabarakallahu lu fi mën a nekk dañuy dee wala Seydina Muhammad waxoon ni aslihu dunyaakum waamalu li axiratikum ka annakum tamuutuna xëddan Seydina Muhammad nee na sellal leen seeni àdduna li ngeen liggéey seen àddina sell ndax loo leen fi mën a nekk loo leen fi mën a def bis dina ñëw da di dee kon doomu aadama li wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina yàlla dana déggalu leen yow Sam yow Cheikh Yirim yow keneen ak keneen yow Dame yow Matar lu diggaluma leen lu dul ngeen jàmm ci biir jàmm boobu ngeen sellal ka waxul ngeen dajale ay alal de déedéet waxul ngeen dajale ay oto de déedéet waxul ngeen dajale ay kër déedéet fu ne jaamu leen ma te ngeen sellal ko kon alal ji ngeen am na sell bu dee góor jigéen tax Sénégal du am alal kon nga xam du kon xam daal ñàkk alal wala au contraire ñu bàyyi góor jigéen yi di tax si biir Sénégal yàlla alal ñu ndax yàlla mooy borom teranga nit du jox moroom nitam teranga waaye borom subhaanahu wa taala mooy joxe teranga waaye loxo yi mu koy jox nag bu setee xam kan mooy borom subhaanahu wa taala ñëpp mën nañoo jëriñu waaye bu ko defee bu bu ko séddalee nag mu dal ci ay loxo yu tilim fa tabarakallahu moo waral suñu réew mi di gën a dellu ginnaaw Seydina Muhammad ni aslihu dunyaakum sellal leen seen àdduna te doomu aadama lépp loolu liggéey ci lu baax yàlla dana la ko fay waaye loolu lépp loolu liggéey ci lu bon borom subhaanahu wa taala dana la ko fay mu ne waxmalu li axiratikum jëfal leen ngir seen yowmal xiyaam ndax nag àdduna jaarukaay la mais yowmal xiyaamati mooy kër gu mujj ga mooy këru dëgg walal axiratu xayrun lakk min ula yowmal xiyaam moo gën ci yéen ci këru àdduna bi nag yowmal xiyaam nag pour nga am ko nag yàlla ne lii baaxul yow Cheikh Yérim nga ni bu ñu defee lii kon économie lii économie laa défier yàlla di indi naan da indi am xam-xam da nga indi xam-xamu àdduna te yàlla ne na wala axiratul xayrun lakk min ula Cheikh Yérim yow mi wax affaire économie ana tubaab bi fi jaaroon deewuñu ñaata ki ñaata kilifa fi jaar deewuñu kon doomu aadama lu fi mën a am day wuy ji borom bi subhanahu kon li li nekk mooy nga jëf jëfu borom bi subhaanahu wa taala li la yàlla digal nga nekk ci li la yàlla tere nga bàyyi ko ka annakum tamuutuuna xaddan Seydina Muhammad ne na yéen ñëpp ëllëg dina ñëw da ngeen dee séragement leen bàyyi leen ma ñu toog seen taal télé bi di wax rek araka nasital mawta wal mawta mawrudun fa li kullin min baaxi ma maata nasimun yow mi toog ci plateau télé yi di wax lu la mais fàtte woo dee araka nasital maa la gis yaa ngi fàtte fàtte dee waaye nag wal mawtu nee na dee naan waaye la fa li ma maata nasimun yéen ñëpp am ngeen ci cër kenn ku ne da nga ci tànk naan ci ana ji na ma fi woon ana Tanor Dieng bëgg dee moo jaay fi woon ana Pape Malick bëgg dee moo jaay fi woon ah kañ lañ fi jóge yow moom toog di wax ak man mii di wax kan moo ci xam ne suba ndax du yow wala ginnaaw suba ndax du yow ka annakum tamutuuna xaddan kon li la yàlla digal nekk ci yàlla ne góor jigéen réew mu mu nekk alag naa leen kilifa yi xalaat ñi ko yàlla dénk xalaat dem ci kilifa yi wax nga ni non non non non non buñ ko defee nii nii nii nii eh, économie Sénégal eh, dañ leen di bu ñu soxloo dara dañ leen di wàññi dañ koy kon yow yaa ngi xalaat affaire poos mais xalaatoo conséquence li yàlla lay duma économie tey buñ ko amee ci ñoom ñu ko yàlla duñ ko lekk ndax daañ ko lekk ah économie boobu économie boobu ngay xalaat yow Cheikh Yérim nga xelal mu dugg ñu Sénégal wala Afrique tubaab bi téye ko buñ ñu ko joxee borom subhaanahu wa taala duñ ko lekk ndax daañu ko lekk barki démb moo njaay yàggul ba léegi jeexagul korona bu mu ñëwee la leen def tëjunu tëjunu àdduna bi yëpp ci benn feebar bu ndaw ah boobu anañ ñoom an seen économie bu ñuy wax fu ne lañ benn feebar bu ndaw ndaw ndaw bu yàlla yebal mu indi fi dispersion bu mag a mag a mag a tëju ñëpp ngi masqué wu kenn nangootu jox sa morom ndox boobu ana économie ana économie yàlla ni bëgguma yow ngay wóoti jullit te lu ma gën a naqadi ci ñoom rek ku ciy wax sa toj tëj rek boo noppee ni taalibe sëñ Babacar la wala taalibe sëñ Tuubaa la ku si def sa toj toj rek ni taalibe sëñ Tuubaa la wala la loolu ba kañ balaa ngay nekk murit wala tijaan da ngay nekk jullit ku nekkul jullit noo nekk murit munoo nekk tijaan yàlla koo ko jigéen baaxul xool li ñu defoon jamono yooyu loolu xar suuf si dugg ci ñu ne lii baaxul yow nga war a premier ku ko war a njëkk a combattre ni lii baaxul baaxul suñuy baaxul si suñuy njaboot baaxul suñu réew nga toog xama foo jigéen gars yi fàtte sa CV barki dee mooy njaay teg ci plateau télé bi dafa am ñoo xam ne kenn waratu leen jox ci plateau yi ñuy wax waaw am ñoo xam ne kenn jox ñuy wax ci plateau yi waaw seydna Muhammad neen nag ibudu llaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa innahu yarak ñoo ngi tëb di dal rek di wax góor jigéen ñi fii na leen bàyyi ñu am seen liberté fii na leen xanaa kon bu ñu bàyyi góor jigéen ñi am seen liberté ñu bàyyi sàcc yi am seen liberté ah sàcc de moo tere góor jigéen nañu wax dëgg nag hmm? nañ bàyyi jaay kon yàmbaay yi jàpp yi kon mais yàmbaay yàlla moo ko saxal direct ku xool histoire ah teewul ñu teewul teewul ñu dëggal ko ni ni ni ni dafa war a baax force xanaa kon bu ñu bu ñu bu ñu bàyyi góor jigéen def lu leen neex taxaw ne ñu bàyyi tuxkatu yàmbaa yi def lu leen neex à cause économie rek la ñuy wax li yàmbaa dugal bu góor jigéen da ko mën a dugal li doog yi dugal góor jigéen da ko mën a dugal ah lu dul yàq yàq société bi yàlla ni rëbb naa ñii nga toog naan affaire économie yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu leen yàlla ba jàpp ne yéen a ngi yàlla bu ngeen jàppul ni yéen a jàppale ni yàlla ngeen di gis ibudullaha ka annaka taraahu yàlla ñaqam naka am ci lu dagan nay lekk lu am naka am ci lu dagan su mu dem mu jaamu ji yàlla si sa alal sax mën nga si jaamu yàlla ci sa alal mu nga si jaamu yàlla moo leen yéen yàlla Muhammad yéen yàlla Muhammad salaa salaam kenn ku ne ngay jaamu yàlla mu ni ki ñàkk jàkka ja lay jaamoo yàlla ne leen jàkka ja ki am xam-xam na jàngale mooy jaamu yàlla ki am alal na may ñi amul loolu mooy jaamu yàlla xool nu ngeen bi tasaaree rek kon fa tabaarakallahu li ñu cërale woon ci waxtu bi man na ci seen émission al ilm wa di xam ak xam la ñu ngi ànd ak yéen ci Salam Vision fii tey ci chaîne YouTube bi ne ci banlieue bi di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu defal ñu jaami ànd ak jaami àllaaxira defal ñu suturu ànd ak suturu àllaaxira dañu daaneel muxtu dañu nuyu suñu sëriñ boobu sëriñ Babacar Sall di sët ci sëriñ Babacar si waaye di doom ci maam Roqeetu si di ko ñaan yàlla yàlla yàlla doon di dëgëral ko yàlla na yàlla doon di guddal fanam yéen doon di sàmm ko yéen yàlla doon di wattu ko noonu la ñuy nuyoo sëriñ maam Ousmane si Dabaax duñu fàtte sëriñ Moustapha responsable muxtafina fi asari abay wal ajdad waaye fa tabarakallahu du ma fàtte Serigne Diagne Bousso du ma fàtte Serigne Cheikh di jëwriñ ki nga xam ni mooy borom télé bi di Serigne Sam di ko ñaanal moom it yal na yàlla doolu dëgëral ko noonu la ñuy nuyoo noonu la ñuy ziar borom makarim axlaax di ko ziara moom it di ko ñaan yal na yàlla doolu dëgëral ko duñu daane mukk duñuy waa jeunesse Tidiane duñu fàtt waa xidmatul xaddim waaye duñu fàtt fa tabarakallahu waa sopp Serigne Babacar Sy waaye duñu fàtte sapp da baax bi nekk ci muxlisiina wal muxlisaat waaye duñu fàtte tamit muxtafiina fi asari abaay wal ajdad duma daaneel mukk duma nuyu Serigne Khadim Mbaye sa tulak daawar bi jaraax bu mag bi di ko ñaanal yéen yàlla dolli guddal fana di nuyu soxna Kumba mi doon anniversaire bi jàngal ko kaamil def ay bernde yéen yàlla dolli sa teraanga yàlla dolli sa xéewal bàyyi la ak sa njaboot guddal seeni fan sàmm leen wattu leen ak mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak ci émission bi nuyu naa ñëpp di nuyu nag fa tabarakallahu Serigne Mamor Mamor Ndiaye taalibe Baye Seck yàlla nee na Serigne cere ba Seck yàlla nee na di ko ñaanal yàlla yàlla doole taxawu ko moom it yéen yàlla ko fàttuma kenn képp koo xam ne nuyu ma la ci làmmiñ rek yaa ngi ci xool bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Bienvenue sur Salam Vision.